wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw bu nu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci ab yonentam Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant a Seexul Xadim delsiwaat nañ mbokk ci jotaay bi nga xam ni nañ ko ànd ak yéen muy yóbbalu suba ci seen télévision bu mag bi nga xamante ni Mouride TV baree rek mbokk yi ñu ngi ci njàngaleem Seexul Xadim nafaana allahu bi barakaati sir ismihi mu mel kon ñu ngi ci sart yi nga xamante ni tax julli mën a war ki nga xamante ni mooy nit ki muy nag ñaari sart muy sart yi nga xamante ni mooy tax mu mën koo war muy li ñu tuddee suratul bu ak sart yi nga xamante ni mooy tax nag mu mën a wér kon jàngale woon nañ mbokk yi ci suñu jotaay bi ñu génn sart yi nga xamante ni mooy tax julli war kon li ñuy waxtaane tey nag mooy sart yi nga xamante ni mooy tax julli wér mooy sula waree nag ba noppi léegi lii tax nag mu mën a wér loolu itam mbokk yi juróomi sart la moo tax mu ni ama suruti shiati lati madat fa xamdadun aydan ala ma qad zabat mu ni sart yi nga xamante ni mooy sart yi tax julli mën a wér moom itam juróom la ba tey mu nekk loo xamante ne lu sax la bi ci njëkk mooy taaratun mudaafatun lil adasi wa baadaha taaratun lil xabasi mu liñ tudde taaratul xadas te mooy laab gi nga xamante ni mooy laab gu xadas te mooy da ngaa amoon am toj muy toj moo xamante ni mu ndaw la su boobaa da ngay fexe ba toj moomu nga xamante ni moom nga amoon nga dal di koy dindi moy su fekkente ni da nga da nga wara sangu nga sangu bu fekkene da nga wara japp itam nga japp ak euh, lab gi nga xamanteni ni moom wax labu khabas te moy barab bi nga xamanteni ni fi nga nek ngir di julli nga fexe bam nek barab bo xamanteni bu lab lay doon kon lolu moy ñaaralu sart bi ñettal bi nak moy jublu li nga xamanteni ni khibla jublu khibla, moo tax mo ni salisuha istiqbalu baytihi al haram wa sidru awratin wa tarku lil karam ñettal bi moy jublu néeg ba nga xamante ni mooy néeg bu ñu warmaal ba te mooy màkkatal mu karam nga jublu ko kon jubli gi nga xamante ni moom nga jublu xibla dafa bokk ci sart yi nga xamante ni mooy tax julli mën waaye suturaal itam li nga xamante ni mooy sa xawra suturaal sa xawra moom itam dafa bokk ci sart yi nga xamante ni mooy tax julli gi mën a wér ni koon tam bàyyi wax muy jëpp wax joo xamante ni bokkul ci julli gi nga bàyyi ko su boobaa tam yow dafa bokk ci charte yi nga xamante ne mooy tax mën a wér ni nga doon tam seen bàyyi bàyyi gi nga xamante ne da koy bàyyi ci lépp loo xamante daf lay soxlal wala suñu borom subhanahu wa taala ni nga doon tam bari ay jëf muy jëf yoo xamante ne nag bokkul ak jëf li nga xamante ne mooy julli gi su ba yooyu yëpp nga moytu ko kon yooyu dafa bokk ci yi nga xamante ne aju julli ji dafa war a làmboonte ak moom mbokk yi kon xam naa foofu la ñuy taxawlu ci yóbbal bi jox leen di daje incha allahu taala ci beneen yóbbal seen mbokk Mahmoudane Ndiaye doon fii ci Touba li gën ci noonu yàlla nag suñu borom defal te dëppale kooku li ñu gënal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.